man li ma si métti mooy lu tax mu tànn Thiès ak dakaar quoi su nekkoon defoon na ko si région yëpp du am benn problème mais ñun moom affaire bi dana metti trop si ñun ak temps yi dëkk bi nu mu dëgëree métti waaw xamante ne camions dañoo grève yooyu yëpp pour nga am ciment sa problème la suñ defee couvre-feu ak euh, état d'urgence dana métti trop si ñun quoi waaw Macky Sall moom xam naa ne moom war na xoolaat li muy def daal. ngeen amul benn njëriñ amul benn njëriñ ndax bëccëg bi si la gars yi di gën a dox di laalante ah mbooloo di dajaloo mais guddi gi sax au moins ku nekk mu ngi këram à part resto yi resto yi ubbi amul benn njëriñ amul amul benn client mais bëccëg bi sax moo gën a garaaw mais couvre ma moom amul benn njëriñ moom. waaw parce que élèves yi heure bi ñuy wàcc am na ñoo xamante ne ma souvent su ma jël sama doom presque ay vingt et une heures laay ñibbi sama kër léegi boobaa taat moment bu muy jàng danaa ko dana dana wàññeekuwaat daal loolu yëpp sunu du sunu njëriñ daal ñu benn njëriñ moom waroon na ko bàyyi donc mu continuer. est-ce moom amul kenn koo ko respecté moom. waaw amul kenn koo ko kan man. Hmm. man de maa ngi takk sama masque moom mais sama biir place sax dama doon takk sama masque mais instant yi dama doon. nu mu too dama doon lekk quoi moo taxoon ma summi hmm. waaw mais nag gars yi comme marché bi nu mu mel noonu moom foofu laay waxee daal hmm. ak salle de gym yeeg yëpp waaw mais daal couvre-feu moom arrange bi moom dëggantaan man moom mettalu naa ko trop dem ba mu ko dégloo moom Macky moom mere naa ko moom. arrangé ñu de parce que day yàq suñu liggéey mais aussi pour aussi pour feebar bi dañ il faut ñu def euh, kii ñu kii ko daal euh, kii ñafe ko def ko mu dindeeku loolu defe naa loolu mooy avis mooy xalaatu président moo tax mu def loolu mais arrangé wu ñu parce que suñu liggéey dee taxaw mais pour feebar bi dañ Sénégal euh, Sénégal yëpp. il faut aussi ñu def effort effort bi mooy lan genre couvre-feu euh, pour euh, takk ay masque euh, raxasu ay loxo maanaam respecter mesures barrières yi. aussi je me pose la question pourquoi la première chose mooy lu tax ñu tànn les deux régions uniquement mais pour man Sénégal yëpp la ñu waroon def couvre fa et puis man je me suis dit aussi lu tax couvre-feu bi la nuit ana feebar bi guddi ba guddi lay jàppee mais virus bi defe naa le jour comme nuit. Euh, et agir. Donc, on devait euh, euh, chercher, par exemple, une autre euh, proposition, solution en quelque sorte, pour mener euh, faire Peut-être solution, ça va être dur pour tout Sénégalais. Mais comment faire Donc, c'est une maladie, on a amuñu choix daal mais aussi deux régions seulement c'est pas une waru nekk kii daal peut-être aussi avec comme que tey y aura euh, réunion des ministres peut-être ils vont changer avis pour Sénégal yëpp. pour moom lu yenn maanaa la parce que doon na loo xam ne faire boo xam ne kenn xamul fu mu fu mu jëm te nit ñi bëgguñoo toog sol leen masque raxasu leen ak saabu baa ngeen laa zel mais dañoo lànk kon boo lànkee nag ki nga xam ne mooy sa kilifa toog loo la waaw toog loo moom man su wàllu bopp dama cee dama cee ànd ak dama cee ànd moom président bi parce que ñëpp dañu war a toog pour mu war a génn parce que tënk dañoo tënk ba fu ñu toog suñu liggéey liggéeykaay yi doxatuñu mais comme yow li ngay li ngay liggéey doxul toogal ndax génn ndax nga mën a réussir nga lànk ah nooy def ku xaru la képp ku bañ rek daa xaru posé wul problème posé na problème posé wul problème parce que dafa doon euh, région yoo xam ne ñu ëppalee ñoo gën a dëgër bopp rawatina man bu noo mën sax dama ciy boole Kaolack bu noo mën ci njiitu réew mi dama ciy boole Kaolack mbaa ma tëj ñëpp benn yoon ñëpp a ñëpp ñëpp toogandoo benn yoon. xam naa couvre-feu bi eh, bett nañu bari eh, ndax fooguñu ko woon par rapport ak li fi jotoon a jaar eh, mais dina xaw a metti nag quoi ci askan wi ndax. boo seetee même ci wàllu koom sax dina ci indi ay jafe-jafe ndax bu ñu tëjee diggante Thiès Dakar boo xoolee dangay gis pratiquement day mel ni ci Sénégal lañ tëj rek waaw ndax boo seet yeneen région yi Thiès day mel ni Carrefour la rek quoi foo jëm ñu fa jaar kon euh, mais nax dañuy comprendre xaj na peut-être pour euh, bañ euh, maladie bi propagé wu xaj na loolu la rek quoi. waaw général yi ne moom gisuma loolu waaw ndax fi ne déjà ñaari Thiès Dakar rek euh, ça pose problème léegi nag bu ñu ko bëggee généraliser nag moom situation yi ñu daan dund moom la ko ne di dundaat waaw kon yaakaar naa daal euh, li gën a am solo mooy fexe nit ñi daal di sol ay masque bu ko defee couvre-feu bi euh, peut-être ñu yamani ko diggante Thiès Dakar. xaj na ci kanam nañ am euh, beneen solution mais pas nax euh, def couvre-feu boo xam ni day laal maanaam euh, Sénégal yëpp. bu nu sañoon moom feebar bu jóg fi moom mais comme la demee nañ muñ rek te xam ne mbas mi rek moo ko indi mais président bëggewu ko woon noonu comme noonu la demee nag nañ ko muñ rek yàlla na ko fi yàlla jële ba ñu nekkaat ci liñ nekkoon ñun ñëpp lu waroon. léegi ah vraiment waru ko mën a yàq de parce bu doon bëccëg la dina metti mais comme yàlla def na guddi gi lañ wax ah guddi gi amul solo guddi gi sax loolu du ci dara parce que dafa sedd ca kuréel war ngaa mën a dem tëddi xanaa laa yaakaar na ñaan rek mu jóg fi daal. loolu moom ñu koy métti lu baax parce que jeunes yi liggéey xam mais couvre-feu bi bu ko tàmbalee tamit Sénégal yi xam duñu xam fan lañ jëm tamit cas social yi tamit nañ sonn ñi nga xam ne dañuy joxe dépense suba ngoon guddeeg bëccëg duñu am loo xam ne dañ koy war a lekk wala ñu koy naan tamit dëgg neexul Macky président la mais président boo xam bu yàlla teg nattu la rek mais nañ ko muñ xam ne maanaam lépp dina jeex daal mais met na trop ñun ci poskat yi mooy loolu noonu parce que xew ñun xew moo tax suñu job di dox wala affaire yooyu 10 ans yaa ma gën a xam mais bu continuer nii couvre bi xam nga job bi du demee noonu yaa gën a xam wala nga war a luyee war koo fay foog chaque fin du mois war a joxe dépasse xam loolu tamit day métti ci ñun jeunesse yi léegi jeunesse yi xam nga lu ñu mujjee dem di sàcc di kàmm naa di tëb gàlle jaam xam loolu tamit naay sul mais président bi li muy teg da koy xool ci loolu nice loo xamante ni di ko teg tamit aussi jeunesse yi sonn nañ quoi sonn nañ quoi lépp nañ jooy baay wala boog Macky Sall wala boog yow waaye yow. àdduna lépp loo gis rek ay nattu la ndax defe naa ne lii nii mbas wi nga gis ni ay nattu la si ñun ñëpp métti na si ñëpp nag amul benn côté bu méttiwul waaw parce que booy xool ñun ci marché bi ñu nekk suñu place yi nii nga xam ne fii la ñuy posé te ñun tey événement moo tax ñuy pause moo tax ñuy am xaalis moo tax ñuy mën a satisfaire suñu besoin quotidien ak familial yi yëpp parce que ñu sommes tous des soutiens de famille képp ko jógee sa kër ñëw fii ci marché bi xam nga ni ut dërëm moo la fi tax a jóg pour mën a dem yóbbu kër ga loo mën a yóbbu seen waa kër ak yooyu yëpp mais de quelque soit alpha bon Dieu a sémi certaines personnes na pas péché mënuñu si dara waaw parce que yaa ngi gis place baa ngi nii doon fees dell tey xew yeeg waaw anniversaire yeeg réception yi moom doon may xaas ñun parce que ñun jigéen ñi lañuy ñuy liggéeyal tey ñun ñooy waaw yokk sa taar mun na moom lañ woowee yokk sa taar mais mun si dara mun si dara Macky Sall moom dama koy lancer benn benn information boo xam ne mooy mooy daal na gën a jàpp waaw luy liggéeyam rek na ko def parce que mooy suñu président mënuñu ko wax lenn loo xam ne dafa ñaaw wala mënuñu ko wax leen loo xam ne après day pénaliser parce que télé la ñuy jàkkaarloo mais dañuy dañuy lancer appel rek mu jàppale ñun jeunes yi parce que tey musiciens yi tey tey ñoom ñëpp kaas nañ seen droit dàmpal nañ leen dara nee nepp nopp mais ñi nga xam ne ñoo nekk ci marché bi aw yor famille yor soutien mais un mois sax xam nga mu may ñu benn heure boo xam ne ci la ñu mën a liggéey suñu soxla wala nangam ak sangam ndax ñun boo xool suñu liggéey yëpp guddi la boo xool ngoon gi fii lay la suba si kenn du ñëw di pause mais à partir de 5 heures ba 23 heures ñun ci la ñuy liggéey ndax xale jigéen ci la ñu mën a defar seen bopp pour mën a génn dem ci yenn milieu ak yooyu waaye nag gis nga boo xool yàq sa taar wala defar sa taar mais nag santé moo ko gën ndax santé moom mooy lépp avant tout santé quoi parce que da na boo xool sax moom mooy benn benn affaire boo xam ne si social la boo xam ne au moins ñun ñun ci la ñu war a mun a parce que tey fii ku sa waajur feebar da ngay bàyyi sa liggéey dem ci moom kon ñun ñëpp nañ gën a góorgóor rek di ñaan yàlla ñun ñëpp feebar bii nag waaw jóge fi parce que tamit sonal nañu trop parce que da ngay dégg chaque jour ka jafe ñu naan waa affaire de politique la affaire de nangam yàlla rek a parce que mbas moom bu ñëwee ci dëkk rek ñëw na fa quoi maa leen mosawu coono yéen ñëpp yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci télé bi nag waaw di dox ci naaj bu tàng bi bon di di interroger nit ñi pour affaire de feebar yi yéen tamit maa leen di encouragé di encouragé borom télé bi nag